maa ngi leen di nuyu ku ci nekk ci sa tur ak ci sa sant tey mbégte mi ma am bi ma duggee fii kenn xamul nu mu toll kenn xamul fu mu yem ci man. te yëg-yëg bi may am bu ma duggee fii ndax Kër Samba li mu doon ci man ak fi mu yegg ci man Kër sàmba dafa bokk ci li ma defar mooñ ma loolu nag mënu ma ko fàtte ndax sama yaay a ngi tëdd fii ci armeel yi samay maam yëpp a ngi fii ci armeel yi. kon na Kër sàmba amuma lu ko ëpp su ma sañoon bu may dugg ci Kër sàmba damay ànd ak suma mbokk sama xarit sama am di jàmm sama wëlëre sama allié ci wàlli politik muy Seydina Ousmane Sonko mu sell mi li ma yàgg yéene ndax moom dañu bokk fii moom itam mu bokk ci xombal gii sorewul yàgg naa ko wax bés dinañu ma sa ànd dugg Kër Samba kan yàlla dogal li mu dogal kon bu ma ñëwee fii ci kër Samba Kane bu ma fi yëkkatee kaddu ci turam laa ko yëkkati itam di leen wax yéeneem di leen wax cofeelam di leen wax remerciement am ak félicitation bu ma fi yëkkatee kaddu itam maa ngi koy yëkkati ci sama rakk Basirou Diomaye Faye Basirou Diomaye Faye di candidat bi ku Ousmane Sonko tànn gannaaw bi ñu nekkee ñetti candidat yu yàlla dimbali ba ñu candidat rek yem ci tant que yeggagoo ci élection yi ba nit ñi di wote saa su ne mën naa faagaagal sa candidat bi mbaa mu gàntal ko mbaa mu sàkkal koy pexe loolu lañu xam moo tax ñu def stratégie boo xam ne dañu nekk ñett ŋànk projet bi escorté ko Bassirou Diomaye fay moom la Ousmane Sonko tànn pour mu incarner projet bi mu jëmmal ko ñun ñuy battre campagne pour fesal jëmmal projet bi li ne ci biir pour sénégalais yi xam ko dégg ko pour man koo tànn bëgguñu rek nit ñi génn naan diw la diw la rek topp ko te xamuñu liñ leen di wax lan la. moo tax ñun fu ñu dem dañuy jukki ci biir génnee ci ay ponk yu am solo ngir wax leen li nga xam ne bu ñu ci yàlla dimbalee ba ñu yegg ca bu ñu ko appliqué loolu mooy liy transformer Sénégal defar Sénégal ba abadan li ngeen bokk ak Baba Garage ci ay jafe-jafe bokk na ci tali bii ñu taxaw tey. ku déggul tali bi itam ku ko gisul dégg nga ko ku nekk ci Sénégal mës na leen a dégg mbaa mu gis ngeen soli t-shirt di manifester pour ñu defaral leen tali bi ñu ngi ci tali bi mu nekk latérite gouvernement bu fi ñëw promettre leen ko ni dinañ leen ko defaral ku ñëw wor leen loolu nag dafa jeex